Android et tablette. La DTV, sous vos yeux, partout, à tout instant. Avec la DTV, vivez la magie de la télé. fidèles téléspectateurs de la DTV excellent diam ci studio Mohamed Gaye alias DJ Mike ñu delluwaat rek DJ jéggalu ci li nga moy minute de retard yi nga xamé nek c'était indépendant de notre volonté du lenn lu dul sunu invité yi way politique yi nag ñoo accusé retard boobu lay ñu delluwaat nak di leen jaajëfal ci top bi ngeen di top programme chaîne chaîne de télévision rawatina nak seen émission bi du question de l'heure seen émission nak dañ ko nara teunk ci xew-xewu jamono na xam ngeen ni ñaar fukki fan ak ñent ci weeru février ci atum 2019 Sénégalais yi dinañ dem tabbaat wala sax ñu tabb ki nga xamante ni mooy njiitu réew mi nga xamante ni nag moo nar a yor réew mi ci juróom wala jàpp juróom-ñaari at c'est selon euh, par rapport ak constitution sénégalaise bi nga xamante ni moom lañ ci xaatim dëxëñ ko ci ngir mën a bokk ci élection yi leen nag am na lu ñu duppe lu yees loo xamante ni lii di euh, parrainage amoon na fi sax ndax ci candidature indépendante yi lañ ko doon appliqué mais léegi képp koo xamante ni rek danga nga bokk ci élection yooyu lii il faut que nga am nombre de signature loolu dinañ ci dugg ndax loolu loolee indi na fi coow wala sax ñàkk déggoo ci diggante nguur gi wala sax ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy kujje gi loolu lépp danañ ko waxtaanee ngir gindi ci askanug Sénégal ñu mën cee am ay leeral waaye ni mu leen ko waxee tamit way politique yi yéen ci yàbbi tolluwaayu le projet de loi boobu lay jëm ci wàllum pare lu jaadu la wala du lu jaadu la suñu naataango bi nga xamante ni mooy Mouhamadou Diallo euh, nam nay tànkam dem xool yenn way politique yi ñu wax ko seen xalaat ci li nga xamante ni mooy tolluwaay bi ñu dem euh, du côté de la baie vitrée teewlu élément bi dellu si waat ci plateau bi. ponk bu déggoo amut ba tey ñu ko si wut waral ñu tànn ku màndu lool ngir mu rataxal diggante yi yombalal waxtaan bi waaye si ndorteel li li feeñ mooy liggéey bi ñu sant Alioune Tine nar yomb. damay bu bëggee dina bëre bu bañee dina bëre. donc buñ ñu bàyyee lii mu jàll aussi dana am yeneen candidat yoo xamante ni nii dinañ leen mën a écarter ci par le parrainage des électeurs ou le parrainage par les citoyens. ku gi taxawaayam leer na jàpp na ne waxtaan weesu nañ ko fu mu toll nii li nguur gi war a def moom mooy delluwaat gannaaw ci projet de loi bi mu am jëmale ko ci wàllum parrainage bi. mu retirer ñaari projet de loi yooyu projet de loi portant révision constitutionnelle projet de loi portant révision du code électoral parce que dafa bëgg tànnal bopam mbeur yi nga xamanteni mom moom la bëgg sëggal bëri. conditions yi nga xamanteni ci lañ demee won euh, en 2012 mu créé conditions yooyu pour ñu mëna a dem ci élection yo xamanteni ni ci jàmm ak salam lay doon mu doon élection yu transparente war a samp sa nënd si joŋante njiiti réew yu nu jëm te ay doomu réew yu bëri xaatim ngir jàppale la si loolu indi won na jéexi jaaxa si biir waxtaan mi amal si lépp lu jëm ci ni ñuy doxalee élection yi si Sénégal te ñàkk déggoo boobu moom mooy woy ba tey na sax sooke benn daje bu mag boo xam ne ku dina ko amal ngir ŋàññ amul benn yoon proposé un pour cent pour les partis politiques dama xamul naka lañ gansé ba indi un pour cent pour les partis politiques. que ñëpp tase à l'Assemblée nationale ñu def une manifestation pacifique contre vraiment le projet les deux projets de loi la. ñi fêter si ni gi ñu ngi jàpp ne yoon la ndax day gën a yemale ñi nga xam ne ñoo fas samp seen ndënd ngir daagaan baatu askan wi ngir jiite réew mi waaye ku jóg ñoom jàpp nañ ne li ñuy indi la pour gën leen waaye ñoom seen càkkuteefu démb mooy seen càkkuteefu tey jëriñ lépp lu jëm biir organiser élection yi ngir benn doomu aadama bu ñëpp wóolu motal Mouhamadou jàll ñu lay jaajëfal bu ñu dellusee nag ci plateau bi ñu am mbégte di dalal ci plateau bi bu Mame ma Sall honorable député di secrétaire général bu jeunesse socialiste di ndaw ñu nekk ci parti euh, parti socialiste ex la jàmm Mame Bounama ci plateau bi. ah euh, merci maa ngi rafetlu yow tamit invitation bi di nuyu suma naataango yi nga xam ne ñoom la ñu bokk ak plateau bi muy Lamine ak euh, Babacar tey rafetlu le fait que tey. daanaka ñi nga invité doon ay ndaw. Mhm. je pense que loolu lu am importance la. te yàgg naa leen seetaan ñuy am ay débat yu de haute facture. yoo xam mhm. ne dañuy waxtaan ci xel ak xalaat nu mu gën a rafetee.

anniversaire bu bu suñu réew meemee boppam ak léegi euh, gannaaw buñ ci dokkalee askanuk Sénégal yépp un peu par rapport ak élément bi nga xamante ni jot nañ ko teew léegi suñu naataango bi xamante ni mooy Mamadou Diallo jot nañ ko taatanal ñen ñu nekk ci kujje gi. Mhm. Euh, jàpp nañ ni ci genn wàll pour rendre dans le vif du sujet que ni président de la République son excellence président Macky Sall nekkul lenn lu dul. Euh, par rapport ak projet de loi bi da ci jublu rek ngir éliminer euh, fexe ba wàññi candidature yi nga xamante ni ñoom la war a jànkonteel wala candidat yi mu war a jànkonteel ci atum 2019 waaw xam nga comme ci biir wax da nga wax lu am solo mooy euh, fête de l'indépendance bii ñu génn may félicité sénégalais yëpp d'abord ci le fait que ci autour de la république ñun ñëpp ñu bokk ko féete ko ensuite de féliciter d'encourager encourager l'armée nationale mhm. par rapport à mobilisation ak par défilé bu am solo bi nga xamné def nañ ko ci discipline def nañ ko ci professionnalisme et puis euh, tax na sénégalais bu nek don am jiixi jaxa nga xamné on a une bonne armée mhm. ginaaw lolu comme li nga ko waxé si euh, euh, ñenn ci opposition yi xam nga réew mi ñu tollu nak réew démocratie la mhm. parce que légui nit ñepp am nañ accès ci médias yi pour joxe sa point de vue mais am na lu gën a am solo loolu lépp mooy li ñu dënk li ñu tënk muy réew muy état de république mu nekk cadre boo xam ne bu ñu normé la ñu teg ay yoon yoo xam ne ci la ñuy jaar pour doxal ko loolu mooy li gën a am solo parce que booba nekkatul ku nekk sa bëgg-bëgg ku nekk sa xol ku nekk sa yéene mm-hmm. waaye li nga xam ne la société dans son ensemble moom moo ko voté maintenant ci loolu euh, jàpp naa ne tey bu fekkee ci démocratie rek la ñuy wax nit boo ko dénkee mbir ba mu dem bay waaj a jeexal sa question da ko war a wax li la dénkoon noo ko doxalee. Mhm. nga xayma ko. ci bilan mais malheureusement opposition bi dañu nekk ci benn politique de diabolisation de Macky Sall. Mhm. dugguñ ci débat par rapport ak fan lañ fekk réew mi fan lañ ko indi fan la toll tey ak fan lañ ko jëmee. Mhm. ñoom dañ naan ku neex rek dafa bëgg choisir ay candidats. je pense que que si on se limite exclusivement aux faits Macky Sall bi Ablaye Wade di toll à la rencontre des Sénégalais. Mhm. discuter avec eux, proposer les, te jàkk ñak gis-gis nak wala xel ne a Sénégalais wala ya leen gëna bëgg gëm wala bëgg lan la avenir seen tay ak di doon. Mhm. et Sénégalais dans leur écrasante majorité ñom ñoko wotel d'accord de toutes les façons dina ci dëgg gën ko yaatal ndax euh, mënees nañoo nangu ñu dem arbitre war a match de football ñu bàyyi ba euh, quelques minutes des ñu siffler match bi ñu changer les règles du jeu loolu lépp dañ ko dikkaat waxtaan la rek wo xamanteni ni dañuy yaakaar ne buñ ko yaatalee euh, mam bu naama dina Sénégal dinañ ci gindeeku ñu am mbégte lool nak di dalal ci plateau bi le docteur Babacar Diop di secrétaire général FDS des forces démocratiques du Sénégal ndokkale déjà ci genn wal ndax euh, li nga xamanteni ñom euh, mouvement la won jeunesse donc pour la démocratie et le socialisme du JDS tay ji ñu muté ba nekk léegi li nga xamante ni mooy parti politique excellent jàmm docteur. salaamaaleykum Serigne Mansour. maa ngi lay nuyu di la gërëm ci dalal bi nga ma dal tey jii fii ci DTV. Mhm. di sant di gërëm sama naataangoo yi nga xam ni ñoom laa bokkal jataay bi. di nuyu waa réew mi yépp ñi nga xamante ni jamono bii ñu ngi ñuy bàyyi xel di ñuy seetaan di yaakaar. ni suñu jataay bi njariñ dina ci génn tàbbi ci askan wi mm-hmm. waaw yàlla def na keroog muy samedi aser bi weesu euh, ngénte nañ suñu parti bu bees mu tudd FDS Force Démocratique du Sénégal mm-hmm. li ko waral mooy ñun parti socialiste lañu nekkoon ba ñu fay duggoon jamono boobu ñu ngi tuddoon JDS Jeunesse pour la democratie et le socialisme waaye bi ñu demee ba xam ni ñu nag Ousmane Tanor Dieng ak ñi ŋànk parti boobu bokkatuñu gis-gis bokkatuñu jëmuwaay li ngay suñu yéene ci réew mi mhm. li suñu yéene ci politique taxawaay boobu mënatuñu ko woon a matal biir parti socialiste dañoo xam ni ndono maam Léopold Sédar Senghor lam ñi ci bàyyi woon mooy soo demee ba nga xamante ni ñi nga nekkal bokkatu leen gis-gis mhm. da ngay am fit nga sumb yoon wu bees mhm. nga sumb tarixa bu bees ci politique ndax mhm. loolu la Léopold defoon 1948 ba mu jógee ci président Lamine Gueye samp BDS Bloc démocratique du Sénégal foofu maam Léopold Senghor ak ñamu àndaloon ñoom Mamadou Dia Ibrahima Seydou Ndaw fa ñu tegoon seen tànk ñun fa la ñu dellu tegaat fa suñuy tànk tànk ya ñu jaaroon ñun tànk yooyu moom la ñuy xeeñtu tey ji moo tax soixante ans après ñu taxawal FDS force démocratique du Sénégal te du nekk un parti de plus suñu yéene mooy tabax parti bu mag parti bu ëpp doole ci réew mi parti bu ëpp doole ci histoire politique bu Sénégal lu dul suñu yéene rek du jël nguur mais ndax Sénégal soo xoolee bi ñuy amee indépendance boobu nga xam ni wax nga ko léegi. Mhm. politiciens yi dañuy yëngu ngir jot ci nguur nguur ak ñoom ak seeni i ñooñ ak seen waa làng te yaakaar naa ni loolu war nañ ko weesu weesu ko mooy jot ci nguur waaye liggéey ci loo xamante ni li nga xam ni mooy jafe-jafe askan wi. li nga xam ne mooy jafe-jafe ñi nekk ci àll bi li nga xam ne mooy jafe-jafe néew gi doole yi dinañ ci indi ay saafara hmm. ñun loolu mooy suñu yéene d'accord eh, lancé nañ parti boobu ba pare hmm. semaine bii di ñëw bi ci topp hmm. bu ñu koy yàlla mayee suñu yéene suñu projet politique yaakaar ne dinañ ko biral Mhm. Euh, joxe jóge ko askan wi ndaxte lu toll ni parti politique wala mouvement boo koy taxawal war nga wax sénégal yi fa nga jëm wala fa nga leen bëgg a jëmee waaye taxawal parti rek ngir bokk ci riir mi mhm. yaakaar naa ni loolu aussi réew mi wees na ko d'accord léegi docteur si je te au mot parti politique boo ko taxawalee ngir mën a bokk ci jongante ma mais pas pour bokk ci riir mi euh, day fekk nga mën a bokk nga euh, mën a am xam-xam nga mën a am xam bi mën a am taxawaay bi mëna am tamit mëna a respecté li nga xamanteni moy mooy critères yi tay ji par rapport ak li nga xamanteni mom lañuy waxtané ndax ci wal yeen tutu leen yi nga xamanteni parti bu yes ngeen je parle pas de do leen ñu yes ci walum politique waye ñu yes ngeen ci parti politique notamment par rapport ak euh, taxaway beeg yoy non ci genn wal est-ce que tutu leen ci li ñu laaj ndax di ngeen mëna bok ci jongante ñu ku ñew suñu congrès aser bi passé samedi Sorano gis la fa dajé ci ay junni junni doomu adama di ay ndaw joggé ci biir réew mi jóge ci bitim réew ñëw fekk sax xam ni ñun mënuñoo tiit dëgg yàlla wees nañ fu ñuy fu ñuy tiitee euh, ñun dafa tekki ci genn wàll que ni d'accord ngeen par rapport ak parrainage bi tekkiwul loolu mhm. li mu tekki rek mooy que ni ñun parti lañ boo xamante ni lépp loo xamante ni rëdd nañ ko pour nekk matuwaay pour war a dem ci élection yi ñun pare nañ ci côté yëpp bu loolu weesoo euh, parenage bi pour nga comprendre ko. Mhm. da ngay dellu si tuuti ci histoire. histoire bu récente mooy bi nga xam ni mooy président Macky Sall jot na ci réew mi ba léegi muy depuis 2012. soo xoolee doxalinam dëgg dëgg dëgg mooy moom natt na ni moom deuxième mandat mënu ko am ci bu mbër yi nga xamante ni war nañ bokk ci élection yëpp bokk. bi mu ñëwee ba léegi mu teg système boo xamante ni moom dina ko may. képp koo xam ni mbër nga muy mbër kaamil boo xam ni jàpp na ni mën na jàkkaarloo ak moom mu fexe nan la lay galgale ba yow doo bokk ci làmb ji loolu la def CREI ak monsieur Karim Wade galgal ko fexe ko génne ko biir réew mi nanguwul mu ñibbisi ba monsieur Karim wàdd du mën a bokk ci élection yi ba mu gisee monsieur xalifa sàll nekk beneen mbër nekk mbër kaamil mu xool ko mu ca kaw ba ci suuf mu xam ni kii mbër dëgg la mu ngi jëm si ci kawam mu jaay ko doole du doole du du démocratie doole karaase la jaay ko doole jàpp doomu jàmbur taqal ko dugal ko ci biir kaso alal ko ci biir ñoŋo ñoñom ci biir làngam ñu gën a taq monsieur Khalifa Sall ma nga fa. léegi mu xool xam ni yeneen i candidat mi ngi fi mu dugal parrainage bi gis nga su may dee leeral parrainage boobu xam nga lu muy nuru. Mhm. mbër mu bëgg a nekk champion. bëgg a nekk roi des arènes ni Balla Gaye du bokk ci làmb ji Modou Lo du bokk ci làmb ji. Eumeu Sène du bokk ci làmb ji bombar Bombardier du bokk ci làmb ji yow ñimewoo entraînement ñimewoo lu metti toog liggéeyoo liggéey bi nga war a liggéey nga ni ñooñu duñu bokk ci làmb ji làmb ji daal yaawu jàll laa koy siqal pour mën a nekk roi des arènes <laughs> d'accord docteur loolu loolu nag boo fa tolloo mhm. mbër boo bëggee nekk roi des arènes da ngay am fit ñime liggéey mhm. su loolu nga tekki sa ngemb D'accord. Nous avons de toutes les façons docteur euh, Babacar Diop du secrétaire général force démocratique du Sénégal plateau honorable député Sira responsable alliance pour la république département excellent honorable plateau euh, <laughs> tardé nañ ay minutes yoo xamante ni moo xam naa ne téléspectateur du maag yow mais yaag téléspectateur yi la ci ci ci ci kanam mais un peu par rapport ak euh, fi Babacar jeexale foofu laa la bëggoon interpeller euh, dafa utiliser benn métaphore dugg ci làmb ji comme moo xew ci jamono mbër moo xamante ni ñemewul a bëreek euh, ténor yi nekk ci làmb ji baanaam dafa tàmm ñi nga xam ne ñoo gën a nekk ci suuf au bas de l'échelle ay yaawu jaal ak yu mel noonu donte xeebu ma yaawu jaal sax ci genn wàll sa euh, président wala suñu président de la république et di secrétaire général bu l'Alliance pour la république euh, taxaway bobu la la honorable jërëjëf Mansour maa ngi lay gërëm di la sante di excuser wu ci retard bi yakarna ne c'est indépendant de ma volonté euh, di nuyu sama collègue honorable député Mamouna Massal di nuyu sama grand frère Lamine Ba di nuyu aussi mon frère Babacar Diop di nuyu téléspectateurs yi nga xamné ñu ngi sétane émission question de l'heure fi ci DTV mm-hmm. Euh, dina sawar tontu ci question wu parrainage bi après ma dogo wax ak tuuti sama frère Babacar euh, jàpp naa ne tey parrainage du lu bees euh, ci Sénégal. Mhm. d'autant plus que ku ne xam na moom xam na ndax jàng na xam na li li bind ci constitution bi parrainage ça a toujours été une loi constitutionnelle et électorale. Mhm. depuis 91. ma jàpp ne li ci yees tey ba waral coow li jàpp naa ne du pour sélectionner candidat bi bàyyi ba ca des c'est une avancée démocratique dans la mesure où tay bo xolé en 91 bi wax affaire parrainage mu nekkon obligatoire ci candidat yi nga xamné ñom ñoy les candidats indépendants tay ji buñu jëlé ñu daan leen laaj 10 signatures mhm. ci six régions différentes ben, may leral ne lolou buñ ko défé c'est juste que candidat bi parce que présidentiel lañu wax candidat bi nga xamné ne présenté aux élections présidentielles war na ko koo xam ni sénégalais lay doon d'abord comme ni ko constitution bi waxee mais mu baña a ci ben mu ethniciser yef yi wala mu catégoriser ko ci ben région mo taxone ñu def ko six régions différentes mhm. manam bo bokkoon tay région de Thiès il faut que Louga Fatick euh, ñeneen ak ñeneen bok ba mat six mhm. nga am ci dix signatures aujourd'hui man li bëgg ñu tek ko comme euh, question sur la table mu nek euh, un débat de fond moy ñu waxtaan ci pourcentage bi ñu li ñu proposer ñom ñu jox ñu une contre proposition manam dañuy yok dañuy euh, les 1 nous yi ñu wax xoolaat euh, signature yi dañ koy yok wala dañ koy selon la population sénégalaise mais ñom à chaque fois li ñuy wax moy c'est des questions politiques. Mhm. dañu bëgg éliminer ay candidats benen bi moy, de 2012 à nos jours le président Macky Sall avant muy nekk président de la République dafa démon ci sénégalais yi laaj leen. de 2012 ba fi may wax ak yow ni saa bu démé laaj sénégalais encore une fois ñom ñoo jox baat on n'a pas peur d'aller à des élections On amuñu intention d'éliminer éliminer candidat le président de la république avec la coalition Benno Bokk Yaakaar pare nañu pour dem ci élection yi nga 2019 mais li am li am solo ci parrainage encore une fois mooy mhm. parrainage boobu tey yemalewuñ ko rek ci candidature indépendante yi dañu ne aujourd'hui bépp parti politique dama lay jox exemple France ramayad biñ koy éliminer récemment ci élection présidentielle yi ñu génn. Mhm. en France ku ne xam na ne lii ñu bëgg a def moo fa am muy parrainage système de parrainage bi 500 lañ lay laaj par des élus ramayad Yade loolu lañ ko éliminer. Mhm. tey jii Sénégal ñu ngi am plus de 300. Parti politique. tey dit, Babacar mi bokk na ci ñi tax ñu bëgg rationaliser les partis politiques parce que doli dolliwaat na parti politique ci biir langue gi. mais Babacar te ñun ñun ñëpp ñun acteurs politiques yëpp. xam nañu né parti politique yi am Sénégal ci 15 millions d'habitants, c'est trop D'abord, l'élection élection yi ñu génn firndel nako législative yi nga xam né mo ñu assemblée nationale il a fallu que ñu dem l'avis avis du conseil constitutionnel pour que ci 47 listes yi électeurs, bi tamit dafa bokk ci mbir mi parce que moy voté ji. sénégalais bi mu dem pour mu ut cinq ci pour voter imaginez bu ñu defoon 47 listes le yëpp sénégalais bi jóg bàyyi pour accomplir son devoir civique mu dem jël fa toute une journée il faut que ñun politiciens aussi ñu xam ne moomuñu réew mi te am réew dafay dox ci ay charte système de parrainage du benn système pour sélectionner ou éliminer benn candidat beneen bi may avant élection législative yi ku ne mu ngi élection 2014 on a eu combien de listes 2700 listes pour des élections locales n'est pas système de parrainage que ñu euh, voter à l'Assemblée nationale bu ñu ko discuter ci yoon yi mu war a jaar ku ne xam na ne am na fu muy jaar ba ak si plénière. narul am forcing. Euh, euh, dinaa dugg foofu. Mhm. boo ko forcing. Mhm. buñ Vous voyez, 2700 listes ci élection locale il man y avait plus de 24 listes dans la commune de Mbour. C'est mhm. jaaduwul dañu ne nañu en plus balanga nga naan ne fa dañu woote dialogue ñom ils ont boycotté parce que ñom ils ont opté maintenant la politique de la chaise vide alors que ñoo la gën a xam ne fa nekul sa morom wax sa place ñur ki ko. té mhm. pare système parrainage aussi du le président indi dañ ko waxtané ci cadre ba ñom nak nekkuñ fa won parce que ñom dañu opté di boycotté rek. je pense que bu féké da nga bokk ak say nawlé ben mbir. Nous, ne ñëw leen ñu toog ñu war nañu autour d'une table mhm. pour discuter des questions essentielles bi nga xam ne moo ñuy jëmale ca kanam li ma ci jàpp rek mhm. li ma ci jàpp rek man nous euh, ci jàpp mooy mhm. ñoom ñi nga dañu contre parrainage parce que le minimum jàpp naa présidentiel c'est un rendez-vous entre un homme et son peuple et son peuple kon jaadu na candidat il y lu mu bon bon nga un pour d'accord euh, ñu am mbégte nag di dalal ci plateau bi euh, Lamine Ba bokk ci comité directeur du parti euh, démocratique sénégalais Lamine egsi la jàmm ci waxtaan bi. merci Mansour <laughs> merci pour l'invitation. invitation nga baal ma ma nuyu honorable député Sira ak Bounama nuyu mon ami Babacar Diop. di nuyu téléspectateurs di leen remercier pour invitation bi. Mmh. maintenant pour aller dans le vif du sujet pour entrer dans le vif du sujet. Euh, honorable dafa honorable Sira dafa wax que ni euh, parrainage bi c'est une avancée démocratique oui mais bon vous savez <laughs> Sira moi c'est de de mhm. bëgguma politique. parce que bu na ma mon et puis mu wax lu am solo que ni réew mi ñun ñoo. ko mom ñoo bok que le président Macky Sall keneen dafay ñëw. Mm-hmm. donc ñun ay ndaw réew waxtaan waxtaan ci parrainage comme ni ko posé dafa am ay problème si parrainage bi dañ koy deuxième point référendum bi ñu voté président Macky proposé ko Sénégalais mm-hmm. des partis politiques deuxième point boobu la rationalisation des partis politiques bëri patch, iponko par les parrainage de na qui mhm. concernent l'élection, élection participation à une élection euh, surveiller aussi la création le fonctionnement des partis politiques beaucoup na rationaliser les partis politiques mhm. financement partis politiques gën leen soumettre beaucoup na président Macky Sall pourquoi proposer proposer Sénégalais un référendum ñu voter ko ko ko majorité sénégalais voter ko mu jël constitution bobu di ci tànn lu ko neex ak li ko arrangé ak heure bi mu ko arrangé parce que ci réforme bobu wax nañu statut de l'opposition lu mu ci def lu mu ci wax désignation du chef de l'opposition Et beaucoup ko amone peut-être jiix jaha bi ñu nekk parce que dañu nekk ci démocratie démocratie ay acteurs le. Premier acteur, c'est les partis politiques qui sont les premiers concernés. le pouvoir le président Macky Sall interlocuteur mhm. mais ce n'est pas le cas. donc il faut arranger la démarche politicienne sur les institutions de la République c'est-à-dire institutions yi bañ décrées di créer yow la république créer les créer pour intérêt benn Ou pour benn Et si on les... dama dépassé dépasser sax jël institution yi au conseil des collectivités locales alliés politiques. allié politique dialogue je ne sais quoi allié politique assemblée nationale allié politique En une institution Réumi, une personnalité neutre y aurait un gars de l'opposition voilà la vision de la démocratie bi bon tout ça c'est pas important mais li gën a am solo ci parrainage bi interpellé, l'honorable interpeller honorable Sira oui il y avait 47 listes mais le président Macky Sall mon financé liste yu bari am nañu ko wax ay alliés weddiwuñu ko <laughs> hein? moo financé ñu bari quelle est sa part de responsabilité ben ñaar bi ñu voté pour léegi depuis inventaire ou élection les élections les plus controversées de l'histoire politique Est-ce président Macky Sall ñu Sénégal nous avons acquis la démocratie à la sueur de lourdes luttes mmh. de lutte de haute portée qui ont permis une première alternance en 2000 deuxième alternance en 2012 donc c'est le président Macky Sall aujourd'hui nous moo la lourde responsabilité parce que dañ ko jox réew mi ne réew à défaut de pouvoir faire plus il doit le rendre tel qu'on le lui avait donné dañ ko fal fait fi c'est pas lu élection libre, élections nous libres nous transparentes organiser ñu gagner, kooku ne ko au revoir ñaanal ko moom loolu mooy responsabilité Car, si la France France parrainage am fa mais lu d'accord la c'est des règles consensuelles mmh. dafa amoon concertation non système politique France dafa am ay piliers yi nga xam c'est des piliers inamovibles de bouger il peut y avoir des réformes selon la tournure de la démocratie mais y a des fondamentaux nous des fondamentaux c'est-à-dire ce qu'on a ce pourquoi on s'était battu et là, j'ai eu tout le plaisir. Mais, mais, mais il euh, y, y, a une chose que je n'arrive euh, toujours pas à comprendre euh, chez les politiques. Nous avons dit que nous avons de la France lan moo pourquoi ñun am ñoom suñu système bu bopp lu ñu jëg rek dañoo wax que ni France loolu lañ fay def ñun euh, dañ ko éventuellement dañ ko appliquer au Sénégal. je pense ñoom ñoo gën mieux placé parce que ñun France. ah déet yéen boo leen dee raisonné nii tamit est-ce que ëllëg si biir boo leen toogee du noonu ngeen appliquer. non man ni ma raisonné. Hmm. France est un pays partenaire. un pays ami un pays frère. frère ami et partenaire ne veut pas dire soumission. c'est important. On traite à égale dignité on se respecte, on préserve nos intérêts réciproques. la question de l'esprit, le reste nous ñi pensé peut-être que nous nous a calquer modèle que ce soit économique judiciaire ou politique avec la France. Non, nous, à notre époque, on a fait plus que la France dans certains domaines de la démocratie. La parité. En France, je rappelle que c'est en 1946 que les femmes ont droit de vote. À ce jour, la question de la parité pose encore de problème France mais nous, nous ko valider d'ailleurs l'ancien président de l'Assemblée nationale française bi et Sénégal mais devons-nous féliciter am na ci yeneen ponk yu nga xam ne dañu raw France raw États-Unis loolu c'est euh, le résultat de l'intelligence politique de l'élite élite bi fi comprenez maintenant pour revenir au parrainage c'est euh, là parrainage bi dafa nekk lu graw man bi may ñëw fii dama dégg yana def déclaration bu responsable éviter l'État du Sénégal à retirer ma rappelle ne le 23 juin dañu génn ci dëkk bi ne dañuy taal pour un gouvernement démocratiquement élu proposer loi ñan ñoo génnoon du askan oui des Sénégalais mhm. des Sénégalais mais du askan bi des Sénégalais qui pensaient que les fi ont du non que des nañu yoon ak droit ñu pour changer les fi mhm. c'était leur droit. et faut lay interpeller mon ami Babacar. Mhm. Babacar. juin 2011 mon toog ak New ñuy waxtaan Canal Info. nga il y a le Sénégal d'avant 23 juin et le Sénégal d'après 23 juin. Mhm. quel est le bilan en termes de d'acquis démocratique. Euh, pour terminer, la dangerosité du parrainage, Sira, oui. Le président Macky Sall, pour son première, sa première mission, oui, assurer la stabilité du pays. tey parrainage bi ni ma la waxee lu le neex la tànn arrangé bi mu demee ba sentir ne est réew mi yëpp jóg nañu une contre proposition non non mais t'es fini fini loi bi à nationale. parrainage bi violer parce que da as laaj ni candidat yi région bu as nombre un nombre global ni 70 000, ni mais de quoi mais il y a 2 millions de Sénégalais qui n'ont pas reçu leur carte électeur, qui n'ont pas voté. Règle pour appliquer, ou quoi en réalité L'article 104 de la Constitution, il pose problème. Les gens bu débat bi du débat politicien parce que réew mi fait une ñu toll nii bëgg de mi yëpp di déglu réew mi de ñu ñaan yàlla ba jàmm

les problèmes en face. <laughs> d'accord La Mansour. Lamine s'il te la mais bu politiques, politique. voilà réew mi dafa le fou dangereux. vous êtes député à l'Assemblée nationale. vous êtes fini de ñuy politique quoi. d'accord je pense que les choses sont plus <laughs> sérieuses. donc c'est très sérieux. oui c'est très sérieux parce que. Mhm. ci réew la c'est très sérieux parce que ci élection la nuit jëm. je pense que l'élection, c'est am solo la maa lay tooñ sànq naan la buñ ko appliqué rek ci football di gën a élémentaire ndax mën ñoo toog ba quelques minutes des ci match bi ñu ñu sifflé ko. at bi ñu euh, sifflé match bi nga <laughs> changé règle du jeu. oui dégg naa Baba Babacar sax muy caricature di wax. Euh, mm-hmm. làmb football. je pense que nekkuñ ci làmb nekkuñ ci football. Mm-hmm. ñoo ngi ci état wu Sénégal jëm ci lu am solo muy élection. élection comme li ma doon expliqué ci àdduna. Mm-hmm bari na réew yu yëngu yoo xam ne élection moo ko moo ko yëngal mais nag timit dañu war a jàpp ne ñun ñoo engagé pour def de la politique mais nous ne sommes pas plus sénégalais que les autres sénégalais ñu amul tey opportunité pour ñëw ci ci plateau pour point de vue et je sais que je pense bien qu'il y a beaucoup de sénégalais beaucoup mm-hmm. plus réfléchis réfléchis, je ne dis pas réfléchis, mais avec des idées beaucoup plus pointues. Mais nous, la yalla dimbalé, nous avons possibilité pour nous faire. Mhm. yéen ñooñu yéen ñu par exemple tey jii comme honorable député maanaam askan bi ñoo leen fal pour ngeen di mën a jottalil ñi nga xamante ni ñoo yor euh, ndomba tànk yi euh, li nga xamante ni mooy seen bébét en tant que député tey jii Eh, buñu waxé askan wi buñ togué toogee ni ko Lamine waxé lé que ni lii mën nañoo yóbbu ci ëllëg dul fu neex askanu Sénégal est-ce que bu ñëwee ci yeen ci walu ndax projet de loi bi mi ngi lé do leen fa wara taxaway taxaway bo xamanteni taxaway askan wi la. parce que man souvent suma déggé en tout cas man ma ngi sénégalais la dëkk ci ba dëkk Jolof weekend bi jot ma nga fa man suma déggé sénégalais yu nit ñi di wax ak sénégalais bi ñuy dund ñun ak bi askan wi dund ci biir. damay wax ne ñaari dafa mel ne ñaari Sénégal la ñuy wax et par ricochet ma wax suma frère Lamine ne ko certes député assemblée nationale lañu ñu waaye ñoom am nañ ay députés yoo xam ne ñoom ñoo leen élire ci seen bannière même si ils sont tous des députés du peuple mais su fekkee am na nga gis-gis wala doxalin wala yaakaar ne lii buñ ko defee pour mu avancer je pense que sa député yu nekk sa groupe parlementaire ñoom ñoo gën a indiqué wu parce que ñoom ngeen di jëflanteeg ñoon ngeen waxante mais au delà de tout ça li ma bëgg a expliquer rek moom mooy que ne ci élection bi ma doon wax. bi ma ñëwoon. dama ne élection dafa am solo ndax nu mu nekkee moment de respiration démocratique noonu la nekkee moment bu sensible boo xam ne bu fekkee classe politique bi amuñ sens de responsabilité mun nañoo. yëngal dëkk surtout ci jamono jii ñu toll. gis nañ ay dëkk yu bëree bëri sax. élection am nga mbir day toll dëkk day toll foo xam ne da nga koo war a ñàkk. ñun ñii ñëpp ci yaakaar naa ci àll lañ dëkk. Mhm. xam nañ luy ñàkk ci intérieur de pays bi lañ dëkk xam nañ luy mhm. Sénégal dafa nekk mun naa ko tuddee tey dafa nekk soo koy misaal da nga koy tuddee xale bu góor waxambaane bu toll. ci digg dooleem ci digg dooleem. am ñu bëri ñu ko soxla gis nga parrainage bii ñuy wax ala kulli xaal foofu mu am parrainage ñaari façon parrainage rek moo am. ban ak ban soit mu am parrainage populaire pour sénégalais yi wala nga seeti ca ca bitim réew ñenn ñoo xam ne soxlawuñ lu may am-am ñu parrainé la. et je pense ñaari parrainage yooyu nag bu fekkee koo xam ne réew mi képp moo la tax a jóg nga am parrainage populaire. populaire boo xam ne dina ñag réew mi ba nga xam ne ay dérapage du am Lamine wax na tuuti ci ne dañu jóge référendum pour que le président Macky Sall tànn ci li ko gën a neex justement xam nga il faut faudrait que ñu bañ a am prétention kën ne ñun dañu mat mhm. ay nit lañu comme ñun matuñu luy génnee ci suñu xel ak ci suñu jëf mënul mat mhm. dañu jóge ci référendum tirer ay conclusion diapone l'île ou lu là, la mais biñ koy mettre en en œuvre dañoo mbëkkante ak une réalité. muy ban moy nombre bu pléthorique bi mu wax nombre candidature maintenant. Mhm. fi ñuy wax ñi ñëpp dañoo nekk ci position politicien homme politique mais ñëpp xam ne dans les démocraties wala fépp ci àdduna c'est l'État qui a la responsabilité d'organiser des élections. Maintenant, démarche inclusive, échange, def ay conciliation, ku nek def des dara, dafa nek ben mode de management bu nek à la mode. Nous pouvons utiliser. Mais le fait que le président Macky Sall ôte dialogue pour nous, wax, je pense que l'opposition dafa wara féké ji fofu. amé proposition faut mon premier reproche bi deuxième reproche bi man j'ai eu la chance élection États-Unis yi ñu ji génn ma bokkoon ci jeune africain invité parrainage bi ñuy wax Sira wax France am au-delà de ça aussi mais am des primaires dans les partis politiques parce que quelqu'un de nous bëgg ku Sarkozy pour nous donner candidat mais jaar primaire passage obligé la woon bim fa jaaree bim amul caution wala parrainage populaire boobu mais dafa toog beneen biñ ci demaat moom aller aux États-Unis ñooñu toll ñooñu ëpp ci dayo ñooñu ëpp tra ñooñu gën a am culture élection ndax bañ commencé di dem élection ñun demaguñu ko. Mhm. mais li muy bari bari bari danoon organisé wu encadré ko ba nga xam ne ñaari candidat pratiquement ñoom ñoo siy génn. donc pour vous dire que. Mhm. soo xoolee démb ak bërki démb wax naa ko élection bu tàmbalee am na ñu bari ñoo xam ne départ nañ fi nekk ne ay candidat lañu bi élection yi pare dañoo gàddaay génn réew mi wala topp nañ leen ak ay banque ak nangam te amuñ un pour cent donc pour vous dire que mhm. loolu moom mooy cër bi maintenant li ma leen bëgg wax rek ñoom moom mooy Sira wax na ko léegi ne nañu indi contre proposition te bu fekkee dañuy débattre par raport ak élection yu ñu jëm. d'accord Macky Sall nekkagul candidat. Mhm. parce que ubbeeguñ langue gi bañ ko bëgg koo considérer comme un candidat. il est le chef de l'État. tey moo am mandat. ci Sénégalais yi pour organiser des élections libres et transparentes. docteur ci genn wàll man dama bëgg rek ñu dem euh, en terme de pragmatisme. Euh, euh, Sira dafa am foo xam ne interpellé na fa léegi ñu nekk ci contexte boo xamante ni dañoo jàpp que ni li mu parti politique yi moom dem na ba askanu Sénégal sax bëggatuñu dayo bi nga xamante ni am nañ ko seen wàll ñenn ñi dinañ ma ne day wan ne li nga xamante ni mooy vitalité démocratie wala pluralisme boo xamante ni mu ngi fi mais tamit ci ci genn est-ce que yéen a maanaa tey jii nga ni da ngay dem élection présidentielle ngir dagaan euh, baatu askan wi te yow mënoo am 1 pour cent bi ñu wax sax ci fichier bi nekk foofu noonu maanaam bu mu ko xaymaa bu ma juumul 65000 électeurs. waaw may ma tontu tuuti ci Sira ci li mu wax c'est vrai que président Macky Sall depuis 2012 élection yi fi am yépp moom moo koy gagné waaye soo xoolee poñ yi nga xam ni moom la doon am jóge ci juróom benn fukk ak juróom ak lu ko ëpp mhm. muy wàcc di yées ba daanu ci ñeen fukk ak juróom ñett loolu mooy waral ni sumb na yoon woo xamante ni bu ca continuer day daanu rek ca wolof yi dañu wax ni lépp luy naaw say donko di wadd loola du sori ca yaakaar naa ni yéen seeni donko mu ngi naaw kon loolu dafay wanal ni ñoom <laughs> loolu xam nañ ni galgal bi foog ñu teg ko pour mën a am seen deuxième mandat euh, baneen bi Lamine li nga wax 23 juin bi nga xamante ni am na le 24 man ak yow ngi daje ci plateau de télévision booba yéen yéen a ngi waa PDS yor nguur gi di def li Macky Sall di def aussi loolu mooy dëgg dama la ni woon Sénégalu 23 juin am na Sénégalu après 23 juin am na ca loolu moo am ba léegi politiciens yi ñu am tànki ginnaaw mais askan wi tànki kanam rek la am ca day avancé gis nga président Macky Sall su ngeen ko bëggee ne leen ko loi bi na ko génnee Sénégal tànki kanam la am ca du dellu gannaaw seen loi bi ku bëgg président Macky Sall raisonnable te nga bëgg jàmmi réew mi te nga yéene ko jàmm da ngeen di indiwaat xelam mu dindi loi bi ñu def ci élection yoo xamante ni bu ko sénégalais yi wóoloo yéene ko deuxième mandat sénégalais yi dinañ ko ko may léegi ci sa question bi li nga wax ni problème bi du question parrainage question lan bi dafa am lu jiitu parenage muy du jiitu aw fas déedéet mooy bala ngay waxu naa da ngay wax ci carte d'identité yi élection législative yi dafa jeex ay tolof tolof yu baree bari am ci élection législative ñu gis ni réew mi ñun ñëpp ko bokk moom la Sira wax moom la Buna wax mais dañu créer ñoom ñaari Sénégal Sénégal bu mën a wate ak Sénégal bu mënta wate Sénégal bi mën a wate mooy Sénégal bi nga xam ni jàpp nañ ni ñooñu fa dëkk ñooñu président Macky Sall la ñu àndal président bi nga xam ne Sénégal bi nga xam ne mënuñoo wate mooy Sénégal bi nga xamante ni ñoom de dañoo jàpp ni ñoom ànduñu ak président Macky Sall muy Dakar mooy Thiès muy Touba. Touba lafa am am seen i carte d'identité bëgg a wate ñu ñëw saboter élection yi bañ waa Touba wate parce que jàpp nañ ni waa Touba duñu wateel président Macky Sall mais loolu lu garaaw la loolu rekk doyoon na matoon na ñi dàq élection yi. créé ay defaat élection yi bees ndax lu yées lool mo am Kenya ba conseil ba ba cour constitutionnel ba daldi daldi lool kon bala ngay wax waxu parrainage 1 gur da ngay gor taxaw ci bépp sénégalais bu wara am at yi nga xamni mo wate war wote mu jot carte d'identité nga may ko akam xam mu remplir lool amul tay ji nga am ministère de l'intérieur bo xamanteni bokul ci ay farfarlo maanaam bokkul ci ñoom mooy ministre de l'intérieur boo xamante ni tey jii moom ma nga direction politique APR di décider fa ñuy nase moom wax na ko ni moom lii liggéeyam mooy président Macky am élection de gagner élection yi boobu ministre de l'intérieur nga bëgg ko def arbitre mu organiser élection yi loolu dafay indi jiixi jaaxe dafay indi day tey suñu xel kon yooyu question yaakaar naa ni moo ëpp solo ay histoire au ndaxte parrainage bi dëgg soo ko xoolee ñoom législative yi lañ wax nii liste yi dañu bari woon naam liste yi bari na mais liste yi bari ñoom la <laughs> du kenn ku dul ñoom ay candidats yu perte yoo xamante ni 2000 voix amuñu ko bi élection yi jeexee seen télé yii la ñu ñëw ni ñoom seen objectif mat na seen objectif moo doon ñu jàppale président Macky Sall mu am deuxième mandat loolu am na loolu inventé wu ma ko ay candidats yoo xam ni ñoom amuñu 2000 voix nga dem élection euh, législative taxawal sa liste amoo 2000 voix nga génn mën a jàkkaarloo Sénégalais yi yow sa objectif jot nga ko moo doon jàppale président Macky Sall ñoom liste yi ñoom la. Sénégal élection présidentielle yàgg na mais élection présidentielle yi fi am bu demee ba am fukki candidat ak ñett ak ñeent foofu lay toll je pense que ni li du problème un parce que le conseil constitutionnel situation n'est pas outillé pour mën des vérifications. c'est ça la vérité nous ne sommes pas suffisamment étudiés. outillé ministère de l'intérieur mooy def vérification bi mhm. dañ ni ku ndobin lu dal wut douze mille signatures yóbbu ko conseil constitutionnel gars yi yóbbu ko ministère de l' intérieur yor seen big di rëdd di rëdd di rëdd ba mu des neuf mille signatures ñu ni ko mënoo nekk candidature tey jii da ngay dem deux mille quatre dix neuf mbër bien sûr moo tax mani la moo tax mani la politiciens yi ñoo am tànk ginnaaw mais askan wi li Macky Sall di def ti def tey jii ñoom Lamine ñi ñoo ko doon def loolu mooy dëgg dëgg rek a neex yàlla man moom amul leneen donc dëgg rek a neex. ndax boo ko ci système boobu ba tey. système moo tax man souvent man bëgguma di wax wax président Macky Sall ndax problème bi problème mu système la. gis nga doxalin moo baaxul du Macky Sall de gis nga doxalin ba Ablaye Wade doon doxal loolu la Macky Sall di doxal pour man du ab Ablaye Wade du Macky Sall problème bi war nañoo mën a indi doxalin bu sel bu set bu sel. boo xamante ni dinañu jàng ci histoire mhm. ça juin am fi maam bu naa ma mii nekkoon sira mii nekkoon obélisque tey jii àdduna di dox di dox di dox ba Lamine mii man am yeneen position devant yéen mais loolu loolu loolu je pense. yow nga ñëw bëgg indi offre politique bu yees. bien sûr d' accord dinañ ci dinañ ci dëkk en terme de proposition parce que euh, ponk la boo xamante am na solo bu weesoo tey jii ni kii lii mu fi nar a indi narul jëmale askan wi fu baax di nga ni tamit bu ñu fi defoon lii dina gën que dinañu moytu loolool. dinaa ci dëkk sax dama bëgg rek nga may ma ma dem euh, xool honorable Sira ci genn wàll. parce que tamit ñu bari jàpp nañ ni comme euh, way politique yi yéen moomu leen moomu leen réew mi ndax yéen a ngi déglu askan wi bu baax a baax retour yi ngeen ciy am bu ñu demee ba ñu jàpp que ni lii suñu moytuwulee dinañu yóbbuwaat fi nga xamante ni jaar nañ fa bërki démb ndax c'est une histoire très récente même 23 juin ñu gis que ni boo leen moytuwul seen projet de loi bii nga xamante ni mooy assemblée nationale boo leen tey jii nii di ngeen ko wote li ngeen xamante ni bërki démb yéen a taxawoon ci biti doon ŋàññi loolu loolu dina leen dal tey honorable jërëjëf Mansour may rafetlu bu baax question bi di leeral di wax ne am na uute parce que bu ñu gëlëmal askan bi mhm. xam nga 23 juin dafa am lu ko indi ça n'a rien à voir ak système de parrainage bi ñu teg lii du lu yees encore une fois mhm. lu nekkoon ci constitution bi la dañ ko jéem a améliorer pour que ñu permettre képp kuy acteur politique nga bokk dañ ko élargir ci ñeneen candidat ne mhm. parrainage bi amoon parrainage pour société civile la wala les candidats indépendants mën nañ ko wax loolu mais bii populaire citoyen manam bép sénégalais bo xamante ne li ñuy laaj ci parrainage accomplir nga ko mais mën nga dem nek candidat dafa lèr ça n'a rien à voir ak système bi ak mode d'élection bi nga xamné ne sama grand mi mom lañ fi don tek muy 25% boko pour jall comme président de la république dafa wouté na lèr mhm. sénégalais liñ ñu doon xeex mooy tripatouillage constitution biñ ñu doon ba légui les règles du jeu n'ont pas été changées président Néoul ni de mes élections dama koy dindi de. dafa constitution ça n'a rien à voir avec le mode de scrutin. changé wuñ ci dara. parrainage Le dañ ko fi dañu 1 pour cent te ñu ci ñi Babacar bu remplir na conditions yi day bokk n'a bu candidat la dañ waxante aussi il faut que nous nangu ne politiciens comme ni ko nous effectivement moomuñu réew mhm. rationalisation des partis politiques comme Nicolas ko c'était dans. Euh, ci référendum euh, référendum si fukki ponk yeeg juróom la bokkoon. mais le statut de l'opposition mënuñ ko waxtaane mais nous waxtaanee ak koo xam ne lavons ko. nangul ñëw ñoom autour du table ñu discuter sur les questions. yi nga xamante ne nous laal li ñu bëgg a def ñun. mësuñu uyu ji bu ñu uyu jee yoon lay doon mais ñom dañu jàpp ne ñoom ñoo moom réew mi dédét l'opposition eh, man dama japp ne am réew day am opposition. c'est important lolu dama koy défendre tous les jours parce que dama gëm ne Sénégal ak dëkk bu manti doon dañoo wara am li nga xam moy opposition mais dañu bëgg opposition bu républicaine. Mhm. buy proposer loo xamante ne dafa ak ñun li fi teg lu dem ci njariñu askan wi. mais une opposition boo xam ne saa bu la tegalee ci table lu mu lay wax nanu génne Karim bàyyi nañ léegi euh, épisode Karim. Euh, nañ kii Khalifa Sall bàyyi nañ xalifa Sall ah, tey tey ñu ñëw ci ci ci ci ci parrainage mbër mi dafa bëgg a bëre mais yow xanaa bala ngay bëre arbitre bi sifflé mhm. ubbee guñu sax candidature yi la coalition Benno Bokk Yaakaar dafa guñu congrès ne tey jii président Macky mooy nekkaat sunu candidat loolu yëpp danañ ko waxtaane c'est vrai en tant que coalition mhm. mais li am solo ñu woo leen ci dañ ciy wuy si mooy nañu waxtaane réew mi indi nañu proposition ñun en tant que pouvoir mais ñoom nañu wax ne lii ak lii la ñu compte beneen bi may ñëw euh, kii nga baal ma. Mhm. bu ma parler de Y'en a marre Y'en a marre nañu ut parti politique nañu uti récépissé comme Babacar. nekk parti politique ce n'est plus des personnes yuy wax au nom du peuple. qui est le peuple ñan ñooy peuple bi c'est pas Y'en a marre. du ñu ay référence ci ndaw ñi du ñu ay référence ci askan wi bay nekk la voix du peuple ils sont mal placés am nañ lu ñu war a lijjanti ak askan wi. ñun tamit ay sénégalais lañu 23 juin bi taxoon ma jóg Babacar mii jóg kii jóg loolu ak lii dafa wuute. nañ ko leeral ndax démb discours bi ngay tenir ci Y'en a marre yaa ngi ko doon tenir mosuma ci Y'en a marre dans le passé. parce que gëwuma Y'en a mhm. li ma gëmoon mooy dama bokkoon ci parti. di sénégalais di ndaw ñu am ci li ñu doon xeex ma adhéré ci xeex bi muy 23 juin encore une fois. bokkul ak système de parrainage bi ñu nekk Lamine xam na li may wax Babacar xam na ko ndax tay xëy na Lamine dafa fekk ji Babacar ci opposition Babacar mi nekkon ak ñun ci wàll beneen bi. Mhm. loolu mooy démocratie boo ma ne Idrissa sek si ñun la bokkoon ay Seydi Jamil si ñun la bokkoon. mais ça n'a rien à voir tey ak suñu coalition bi ñu am parce que fu ñu génnee rek am na ñeneen ñu dugg. Mhm. ko Babacar wax na ko ñoom wax ne est-ce que ñu génn ak ñi dugg. non na tolloo ay tolloo amu fi xam nga li am solo. moy mhm. dañ ñoo denk leur du bilan dina jot. d'accord renouveler waat mandat dina jot askan wi la ñuy demaat laaj teel euh, euh, Lamine honorable ci genn wàll parce que jàpp na ni bu waxee rationalisation des partis politiques yéen ci genn wàll législative yi 47 listes yi dafa jàpp ne que ni liste yu bare bare yéen a leen sama frère Babacar. Mhm. ñi taxaw ne Macky moo ko cautionné man gisaguma fu Macky cautionné ci législative yi. système li ñuy waxtaane nii. Mhm. ñoom wax nañ ko léegi euh, sama grand Lamine wax na ko nee na élection yi ñu organiser baaxul. am nañu voté wul la même chose la Babacar wax mais loolu lu ko waral c'est parce que list yi dañoo bari woon yéen ñëpp xam ngeen ne aujourd'hui Sénégal parti politique yi mu am jaaduwul nañ leen teg loolu ci taabul bi ñu waxtaan président Macky Sall ba mu toogee ci réew ba tey jógul di woote euh, dialogue c'est que kañ muy woo ñoo dul uyu té lolu nak ñom askan wi dañoo wara wax ak ñom xam nga lu tax parce que ñu xeex bu ñuy xeex teg ko ci ndoddu askan wi alors que c'est des questions purement politiques et des positions purement politiques la même sur ce point là parce que tamit euh, ñeneen da ngeen parce que da ngeen raté euh, concertation yi nga xamé ne woowoon nañ leen lolu tax peut-être li dal seen kaw n'a rien à voir mhm. ak parrainage bi nga xamante tay tey nañ ko ci table assemblée parce que dañoo japp ne que ne bu ñu moytuwul ci la encore une fois askan wi li muy xaar ci mhm. pouvoir moy mu fajj ay ay jafe opposition li ñuy xaar ci mom mu opposé wu en toute responsabilité mais républicainement mais opposition bi ñu dara ci table bi lu crédible lo xamné ni Sénégalais daa ci mën a gis ci mëna gis seen allez-y allez-y lay tontu si non pour pour un peu tu point peut-être bo len bu ñu fi au niveau du débat c'est parce que yeen sen wàll da ngeen a bokkul woon ci concertation yi nga xamante ni boo leen demoon ci waxtaan wi peut-être les euh, problèmes yi duñ ñuy soulever présentement mënoon lañ ko régler depuis belle lurette république doit mm-hmm. faire Tchahan. L'État l'état faire faire La démocratie doit faire Nous mm-hmm. mm-hmm. Nous euh, ñun exemple parrainage je pense nous avons le pouvoir. aussi. laissez-moi dire, nous avons le pouvoir euh, pour pour lan pour bëgg ñun dañu daanu ñun ñoo organiser élection ñu daanu. ñun ñoo organiser élection ñu daanu. avant yeen ñun. Euh, ah kon kon tey léegi bu leen bañal ñi ñu organiser élection. maa ngi ñëw maa ngi ñëw. mais mhm. anam yi ñu organiser élection. moo bokkul damay fàttali ne moom fi mu bokk ci fu mu bokk. ñoom ñoo demoon jógee Liberté 6 ak seeni patron mu président Macky Sall ak ñoom Tanor ñu ne Ousmane Ngom du organiser élection. En fait, l'esprit démocratique il Wade ne mitin la révoquer Ousmane Ngom. On créé ñu nommé un fonctionnaire pour organiser élection. Lolu du acquis démocratique. Lolu du acquis démocratique nous sommes au Sénégal war deux pattes. parce que exemple les États-Unis France c'est vrai mais nous, c'est une démocratie depuis deux peu depuis de peu depuis deux mois depuis deux mhm. <laughs> nous on a bon dos. on a bon dos. le PDS a bon dos. mais le PDS est le seul parti depuis l'indépendance à def dans nous toucher. nous bañ un ci débat au bout c'est très sérieux c'est des jeunes frères des gens pour qui j'ai beaucoup de respect mais mais exemple il y a beaucoup de parti bi nga mécanisme démocratique ngay est-ce que am na fi est-ce que nous, avons moo tax ko parti malheureusement nous, man pour man ah non deux ans. non non non pas recevoir leçon de vous. non je ne dis pas n'ai pas de leçon. Ah, à vous donner. ah ok mais je constate que. Mm-hmm. il y a trois ans moins de trois ans deux ans yéen ñaar yéen a bokkoon même engagement même conviction même parti politique aujourd'hui nous génn de dem créer parti parce que je suis qui, terme démocratique un comme il y en a chez vous aussi. d'accord ah, oui, mais comme donc pour te donner comment commence par soi-même tu peux prendre l'exemple sur le PDS n'est-ce pas. donc pour voir, mhm. la. raisonnement bi en tant que jeune acteur politique feu léger parrainage bi ngay minimiser c'est une affaire très très très sérieuse bonhomme. Le député nga ndaw nga après Ousmane Tanor après direction parti socialiste il y nga un avenir politique ci dëkk bi dafa am benn euh, tey boo ñuy woo ci socialisme ci débat boobu laa lay fekk dama la bëgg wax ne la yow da nga incarner am benn gis-gis parce que man bëgguma toog di waxtaan ak yow di gis ne raisonnement bi ngay suivre waxtaan bi fi nga ko jëmale amul benn conviction idéologique amul benn repère boo ko lal lu muy lal ko ci ay affaires yu aléatoire député nga ndaw nga ah kilifa nga ci réew mi non je te parle donc tey ndaw réew mi ak fi réew mi toll parce que y a deux ans réew mi tollul woon fii 25% pour cent ñu mosuñu def loolu ci constitution bi Ismaïla Madior Fall leeral na li ci woon projet de loi Ablaye Wade l'actuel ministre de la justice du Sénégal Burkidembu, démb ci un RFM donc lolo waxu politique qui ci tardé euh, référendum bi argument bi ngeen di joxé oui parrainage fait. On fi fait au Sénégal mais pour les candidats indépendants mais est-ce que candidat indépendant ak parti politique ñoo là mais Ils ont une vocation Beaucoup ñu partis, li parti laaj candidat indépendant laaju ko mais démocratie tolon, comme l'élection présidentielle est la rencontre d'un homme avec son peuple war nañu a may candidat indépendant mais à condition. y a 2000 signatures. oui Si vous avez un parrainage étranger, étranger ñaari parrainage mais étranger moi, 2012. cest à dire. le cas la Diack député est ce que vous sommes wax nationale. La Mindiak, euh, comment. En, 2012, je n'étais pas, pas. Mais tu es du Parti Socialiste Oui, parce que je n'avais pas ces responsabilités. Non, de responsabilité Non, je veux dire que n'avais pas, j'occupais pas, je n'étais pas à une distinction. Je ne de... me permettre. Peut-être. Je veux dire que autant Vous en 2012, j'étais membre du MES et par conséquent, les positions que j'avais, c'est dans les instances du, MES là. Je ne dis pas ça, Bouna. Ah, ok. Je dis, vous êtes député à partir de quand vous êtes dans votre première législature. Oui. Bonne année, le commencé. Je vous, je, je vous renvoie la question. Affaire Lamine Diak, amul fofu problème bu faut wax. Assemblée nationale, Non non non, quand vous m'avez pas compris du parrainage. Non, c'est du parrainage. il y a un parrainage ñaar mo am. Mhm. Parrainage populaire. ak parrainage étranger ak ay lobby ak ay intérêt. Oui. ma deuxième notion de parrainage bon, nga wax ne baaxul. Mhm. moo am 2012. Un scandale Lamine tout élection Sénégal tout Khalis bu et au député est-ce que vous nga est-ce que d'accord avec le Sénégal Sénégal nous avons un mën di pour déstabiliser régime c'est le Sénégal qui nous écoute donc nous sommes ndaw mais politique pour ah. que. pour Daniel. Le principe d'égalité boobu ngeen bëgg parce que li parti nekk du candidat indépendant. d'accord pour Daniel, amen. waxuñu ne bu Nous dialoguer ñun bañu ñu dialogue bi ngeen wootee mhm. malgré wuyu boobu mu am changer loi nous terewul ñu ñu dem élection à l'issue de l'élection, même le président Macky Sall a reconnu que l'élection est Diarouyon. Nous sommes d'accord que Diarouyon. Mais il faut un bilan. Nous avons 3 000, 2, millions de cartes d'identité. Ils nous ont Et nous avons un bilan. Nous avons beaucoup. Parce que les gens grave ont tiré au milieu. Nous avons un départ avec le fichier électoral. Le fichier électoral, il y a 4 millions d'élections waaye Sénégal démocratie dafa toll fu nga xam ne nii état bi mooy war a xayma ñaata nit à peu près ñoo war a nekk ci fichier électoral bi pour ñu war a mun a organiser élection. alors ci concertation la koy jëlee. non. si. non je vous explique. si si si lu lu leer laa la wax que ni pouvoir bi moo fi taxawoon ne. Mhm. dañuy jàpp ne bu fichier bi matee 4 millions ñu dem élection loolu moo indi élection yi. d'accord pour pour pour pour avancer un peu. Euh, la li ñu war a noter globalement. Mhm. moi que tey démocratie Sénégal démocratie Sénégal malgré li ñu dund sous Abdou Diouf. Mhm. am ay avancées ba première alternance dund ko su Wad, am deuxième alternance pays, dafa dellu ginnaaw. recul démocratique, nga Le léegi recul vous mhm. sans ñu rétane, parce que ay ndaw lañ muy Macky Sall muy keneen de jaar fii. mu dem. ñu ñu ñu diagnostic ko ut ci ay solution donc d' accord dañu war a waxtaan. d' waxtaan woowu la Lamine euh, dafa am ñoo xamante ni tamit ci waxtaan wi la ñu bokk muy. mbokku téléspectateurs yi nga xamante ne nag ñu ngi fëgg ci buntu bi sànq ba léegi ndax bu ñu defee le 88 628 11 22 dinañ mën a joxe seen xalaat ci li nga xamante dañ koy waxtaan mam bu naa ma ci lu gàtt rek un peu par rapport ak ni su leeru ci ba bopp askan yi dafa mel na nga cautionné ci genn wàll euh, candidature yi nga xamante ni du ñu jóge bitim réew maanaam yi nga xamante ni tey jii jógewuñ ci volonté populaire euh, muy candidature yi nga xamante ni nit ñi dañuy jóge foofu ñëw mën a indi alal joo xamante ni ñu duñ am benn traçabilité ci wàllu woowule mu doon lu dangereux ci réew non euh, demeewul noonu. Mhm. d' accord ni ma ko bëggee expliquer parce que Lamine daf may interpellé. je pense que xam naa ne mi ngi def communication mais bu mu fàtte ne xam dérision parce que ce n'est pas moi qui suis l'objet des débat on parle du parrainage on parle du Sénégal et autant nga mun a wax si man autant mun naa wax ci yow ak ñeneen mais ce dont il s'agit aujourd'hui c'est l'élection yi ñu je vous donne un exemple. en 2007 pratiquement qui cellule communication candidat Ousmane Tanor au conseil il nga a le euh, débat mhm. mais bon, les élection présidentielle pour un exemple pratique chaque candidat RTS ou ACR a une obligation d'avoir une équipe de journalistes. bien sûr caméraman preneur de son journaliste Ngawara dem journal de la campagne je vous donne un exemple Kounek au moins 5 cinq minutes boyal. quand on a 30 candidats je te donne un exemple bu amé, amee candidats, candidat ku nekk ñu jox la minute pour ñu dem journal de la campagne Danandem dem ñaari waxtu ak ñeent fukki minute pour def journal campagne pour vous dire que rek ci walu woowu rek lolu rek rationaliser candidature yi leneen li ngeen bëgg wax pour essayer comparer loi bi ak parrainage bi ak 23 juin comme yàlla ak yàlla xaajun bay bokk sax parce que sénégalais li leen yëkkati woon mooy kun joxoon suñu réew pour mu doxal ko mu pare bëgg koo yëkkati jox ko doomam loolu moo yëkkati woon sénégalais ensuite l'opposition pour vous dire mhm. vous avez le droit de vous opposer mais ñun obligation de résultat la ñu am parce que sénégalais yi foofu la ñu xaar duñ leen topp ci fi ngeen bugg a def parce que vous ne parlez pas de programme fu ñu waxee ngeen ne kii buggut a tëj kii dafay dàq kii kan lañ fi dàq boo xoolee tamit si bu ñuy def raisonnement mais constitution Sénégal li mu wax daf ne ñun ñëpp ay sénégalais am na 14 millions de sénégalais. Mhm. ñu ne pour nga nekk candidat d'abord. dana la foo nga am. takk plus de 18 ans toll nii. d'accord am say droit ak nangam je vous donne un exemple. que tu sois wala bu fekké am na keneen kuy ñëw mbokku téléspectateur bi nekk ci ligne bi ma jël ko dellusiwaat ci yow allo salaamaaleykum. allo. Ah, sëñ bi noo tudd ak foo ñu woowee. Ah, maa ngi woote Italie quoi. wa dégg nga li ñuy waxtaanee tey. waaw waxtaan bi la bëggoon euh, déglu euh, waxtaan ak yeen tuuti. wa excellent jàmm ñu ngi lay déglu. Euh, dama bëggoon waxtaan ak opposition bi quoi. Mhm. dama bëgg bu ñuy waxtaan nañuy nañuy jox solution waxuma rek ngay nekk fii di di wax ay yeneen wax boo boo dindee dara da nga fay teg dara dégg nga. Mhm. jërëjëf. jërëjëf. yaakaar naa dinañ ci tontu léegi et eh, ñoom Babacar en terme de solution yaakaar naa ni tamit lu am solo la ci génn terminer si vous ah, ah. me permettez. par rapport ak ak li ma doon wax ci ci ci 23 juin bi. Mhm. dama ne la boobu dévolution monarchique la woon. mu tasante courant di coupé. ñu jël alalu réew mi di ko sax saaxee gis fi lu mel ne Ségura wala leneen ak leneen gis lu mel ne su ñu nërmel ko gis ni Sénégalais yi euh, di gis daal violence boo xam ne ak ni ñuy sax saaxee suñu réew mi ak yeneen doxalin yu bari loolu moom moo indi woon Sénégalais yi dajale métit googu gépp ba ne juin bii. da ñu wane ne leen yéen ñi moomu leen réew mi leneen li may bëgg a wax ne ñun ñi nga xam ne ay député lañ mais ci askan wi lañ jugee moom laa doon tàmbalee sama wax jugee ci àll bi suñu groupe parlementaire ñu ñi ci ëpp ay maire lañ ñi ci ëpp ay président conseil départemental lañ ñi ci ëpp ay conseillers municipaux wala départementaux lañ ça veut dire que ñooñu dañu légitime dañoo jugee ci askan wi di fa dellu chaque jour pour vous dire que ni lii ñuy wax nii c'est comme si ñoom dañ ñoo bëgg jël jël ñu ay sénégalais à part. kon gëmuloo gëmuloo li ñuy wax ay majorité mécanique ci assemblée nationale. non mais parce que ñooñu ay responsable lañ. Mhm. ñoom nii ni ñu bëggee réew mi. la ñu bëggee réew mi ndax Babacar mii le 23 juin bi mu jaree ñu def ca lañ ca def mais dañ faa taxaw man ak moom ak keneen mun nañoo am nag jamono. Mhm. ñu dem ba si yàgg yow ni nga gisee ak nit ki nu mu gisee. mu wute ñoom lu ñu bëgg bëgg bëgg réew mi nañu jàpp ne. gënuñu leen ko bëgg gënuñu koo bëgg. gënuñu ñoo responsable ndax ci euh, askan wi Babacar Babacar bu ma lay jox kàddu gi dama bëggoon nga baal ma dafa am benn élément boo xamante ni waa société civile bi ñoom tamit ñi ngi xool di sànni seen gët ci xew-xew bi ndax ñoom d'accord nañu lépp lu jëm ci wàllu parrainage bi le li ñuy coowee ci jamono ji jile dama bëggoon rek ñu dem di côté de la régie ñu teewlu élément boo xamante ni ñenn lañ ci wàllu société civile yéen a yàbbi ci mbir mi la ñu seewlu ñu teewlu côté ci plateau bi lépp lu aju ci wàllu parparloo jëm ci mbirum politique société civile bi taxaw tem ngir càmbar li indi coow li jamono ji ci langum politique bi jëm ci mbirum système de parrainage doon lu jaad woon lu yàgg lool ci ñi nga xam te ñooy candidat indépendant yi tey ñu bugg ko yaatal ci candidat yépp dañ ne léegi nguur gi dafa ne euh, parti politique rek nekk ko mu taxul nga mën a ngemb candidat li ñuy laaj ki nga xam ne yarul parti moom la ñuy laaj ki yor parti même boo yoree parti politique boo yorul parti politique boo nekkee candidat il faut que mu am lu mat téeméer boo jël ci ñuy voté kenn ngemb la ci. jamono ju ñuy waajal élection présidentielle nga xam ne li ci des daanaka matul at mu mel ni ñàkk déggoo gu fës dox ci diggante nguur gi ak it kujje gi ci ay poñ yu uute. contexte bi. dafa nekk contexte boo xamante ne euh, favorable ndax contexte su euh, féewaloo la entre classe politique bi beneen bi mooy sur le plan technique maanaam ci wàllum xarañ euh, dafa am ay risques yu ci nekk yu bëri mooy que ne lan la ñuy vérifier recevabilité candidature yi mooy signature yi tur yi ñu xam ne ñooy voté di emprisonné ay ay ay ay ay ay euh, candidat à la présidentielle tey jii ñi ngi jël parrainage bi pour ko utiliser pour tamit xañ yeneen i acteurs seen ay droit moo ñu ne nag ñun duñ ko nangu duñ ko seetaan. lu ni mel tax ba société civile bi di woote ak waxtaan ngir déggoo mën caa juddu. fu mu toll li ñu war a def mooy d'abord retirer texte bi te woote waxtaan ci wax waxum nan la ñuy euh, ba candidature du jéggi dayoo je crois que nguur gi dafa war def effort woote waxtaan. au classe politique bi. ci société civile lañ bokk mais pare nañ pour taxaw ànd ak force opposée yi pour xeex xeex bi pour que ne parrainage bi incha allahu rabbi lu dugg assemblée nationale bu fa naree dugg suñu kenn kàttan dinañ ko def pour wane ne ñun dañoo bañ. ci xibaar yi mujj yi mu mel ni Alioune Tine ma ñu tànnoon ngir mu mën a yombal mbiri diggante kujje gi ak it nguur gi ci wàllu parrainage bi mu mel ni rocc na ci ay loxoom ba mu set wicc teewul société civile bi ñoom ne daañu def seen kéem kàttan ngir wéyal waxtaan yi. diggante nguur gekk kujje gi ngir as déggoo mën a judd laata élection présidentielle yu atum 2019. Pape Ousmane Cissé ma lay jaajëfal Babacar bala ma lay jox kàddu gi rek baal ma mbokku téléspectateur bi dafa yàgg ci ligne bi allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. sëñ bi noo tudd foo ñu woowee. waaw sëñ Mansour na leen def man la Modou Fall. waaw Modou. waaw jiite dëgg moo wër. waaw Modou Ex la jàmm ci waxtaan bi yow ci kuje gi nga bokk. Mhm. waaw léegi dama bëggoon intervenir par rapport ak parrainage bi. Mhm. Euh, profité ci occasion bi posé wàllu question. d' accord allez-y. Euh, bi ñu bëgg a introduire. Mhm. donc bëggoon xam ban pays ban pays ci monde bi. xam nga deux cent onze pays. deux cent onze pays yooyu ban pays ci monde bi moo utiliser parrainage bi ñu bëgg adapté. bu doonee am na benn pays rek ñu si teel ma ko. ñu ni maanaam réew sàngam pourcentage sàngam lañ fay laaj pour parrainage euh, citoyen mhm. loolu mooy question bi mhm. rek ñu nekk ci plateau bi nañ ci en termes de pourcentage mhm. comme niñ ko bëgg a defee fi intervenir nag mooy proposition yi je pense que vous ñu liroon rapport bi rapport au cadre de concertation sur le processus électoral Il y a tellement de propositions y a au moins cinq propositions alternatives yoo xamante ni day compléter parrainage bi les non alliés ont parlé de rationalisation de candidature, basée sur euh, l'instrumentalisation des pôles. Nous une solution là. Mhm. Parce que vous créez un pôle, comme ça se fait aux États-Unis, dans les candidatures Wanyako. Oui, ben. Proposer une bonne proposition aussi. Mais, parrainage bi au lieu koy parti politique Pour bu élection nous avons un dossier de création de parti politique kenn ku ci nekk ñu laaj la un certain nombre de signatures pour sénégalais yi mën laa parrainer nga constituer ko agiter ko ci sa dossier pour ñu mën a accepter ce parti donc je pense que bu ñu ay proposition loolu damay am gàcce sax man mi bokk ci cadre de concertation bi parce que y a eu tellement de propositions dama bañ a monopoliser parole bi. d'accord Modou mais donc je pense que waroon nañu respecter Sénégalais yi. naan ay yan proposition yan parce que y a tellement de propositions alternatives kenn ku nekk ci ñoom bu lire rapport bi dana xool proposition yi ci nekk. C'est une propre proposition de Benoît Bokk Yaakaar mais Benno a proposé 0,5% pour les partis politiques. et 1% pour les candidats indépendants. Vous lirez le rapport bi dinañ ko gis page ça c'est la proposition de Benoît Bokk Yaakaar Benno n'a jamais proposé 1% pour les partis le rapport est disponible donc lola laa bëggoon vous wax. d' question nag qui naa réponse les 211 pays au monde. Mhm. ban pays la ñuy utiliser parrainage citoyen mhm. avec un pourcentage. d' accord bu amee réponse nañ ñu ko wax maa ngi déglu. dinañ la tontu Modou Modou Fall moom bokkoon na ci ci kujje gi la bokk ba pare bokkoon na ci concertation yi nga xamante ni nag honorable député Sirabo laajoon na ñoom Lamine et consort ñu teewe ci moom teewoon na ci te yaakaar naa ni peut-être loolu moo ko permettre mu mën a am benn euh, regard bi ci tolluwaay bi ci genn wàllu société civile bi dañuy jàpp que ni projet bi war nañ ko mën a retirer ñu waxtaanee ko ba pare. waaw projet bi non seulement war nañ ko war a mën a dindi. Mhm. mais yaakaar naa ni sax président dina ko dindi. ndaxte Sira ak Bouna dañu wax ni parenage bi bokkut ak 23 juin mais mën nañ leen a méngale. 23 juin xëyul xëy am ay comportement ay doxalin ñoo indi 23 juin daayu 23 juin. matt ya ko taaloon mm-hmm. yëpp tey jii daje na 23 juin lu ko taal mm-hmm. wax waxeet wax waxeet am na fi président nee na fi su ngeen ma falee juróomi at laay def mu dem ba ca cëppaandaw ga mu def wax waxeet amoon na fi kon man damay def wax waxeet jaay doole 23 juin lu ko indi woon famille ci biir nguur tey jii la wàllu gën a ay famille président de la république mi ngi ci biir nguur 23 juin lu ko indi woon jaay doole tey jii la jaay doole gën a ëpp doole ci réew mi Karim Wade exilé politique la. 2018 mm-hmm. démocratie sénégalaise di am ay exilé politique loo xamante ni ba mu daan am at. Babacar bala nga yaatal rek baal mu ma dem ba Touba Mbacke jël mbokku téléspectateur bi sëñ Mbacke egsi la ci waxtaan bi. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. ak ñoo leen di nuyu yéen ñëpp. ñoo ngi lay fay. di leen ziar baax. yalla yalla yàlla nangu si dégg nga li ñuy waxtaanee jam mhm. Serigne Cheikh Mbacke Touba. waaw serigne Cheikh excellent jam ci waxtane bi deng nga li ñuy waxtaanee tey. bahwa. dégg naa ko bu baax waaw. di rafet lu waxtane rek di wax ni. système parrainage mom dama ci ànd bax ndax bo xolé parti politique ni Sénégal dafa upp réew mi la serigne Cheikh Tidiane doon wax naan bu démé ba ñi nga ñooy parti ëpp nit ñi loolu problème mhm. kon nag dafa jaadu ñu yamale ko ci yamale boo xam ne danga xam ñi mën a dem ak li yenu maana ak li yenuun maana waaye parti boo xam ne matul ñaari junni nit ba pare junni junni junni parti pare dugal ñu ci politique bu dul jeex nga xam ne ñi nga xam ne fal nga leen sax du ngeen def mooy temps pour ñu mën a liggéey mhm. ñi ngi ciow jëm ni ñi ciow jëm ne kenn ku nekk sa bopp nga fi nekk rek kon day jaar ñu dimbali ñun askan wi defaral ñu li nga xam te parce que vraiment moom ñëpp ci bokkee muy Macky Sall da ko war a am da ko war am da ko am waaye nu fàttali ni tey dafa am ku doon wax benn kilifa mu ne kilifa yu bëri Macky Sall daf leen ger ba mënuñoo wax malheureusement Bumba dog na Babacar. Mhm. donc dama doon wax ni. Mhm. daayug 23 juin. taal bu toll noonu li ko indi woon 23 juin xëyut xëy rek sotti ay doxalin ay xeetu politique. Mhm. ay doxalin moo xëy xëy jur 23 juin. te jàpp nga ni doxalin yëpp. yooyu yëpp dajale la ca jiitu mooy wax waxeet. am na fi kenn du ko weddi. ñun ñii ñëpp fekkee nañ ko. Macky Sall def ko. ba ca topp mooy jaay doole gu fi régime Abdoulaye Wade doon def tey jii la waalo gën a ay ndax tey jii lañ ko ana Karim Wade dama ni exilé politique la Karim monsieur Khalifa Sall ñu dugal ko ci kaso bi jaay ko doole Barthélemy Dias dugal ci kaso bi jaay ko doole ñoom Bamba Fall ñoom Birakan njaay ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen bi mag nguur geeg léegi li fi di ay prisonnier politique kenn mënu leen a trois 23 lu ko indi woon mooy jël alalu réew mi saax saaxee ko détourné ko tey jii le rapport yi wane nañ ko am na ñoo xamante ni tey jii suñu bàyyi woon yoon mu def liggéeyam la xew kudd scandale bu mag la la xew poste scandale bu mag la la xew port bu mag la ñooñu ñëpp ñu làq leen loolu mooy dóor doomu jàmbur làq doom 23 juin lan moo ko indi woon mooy famille Karim wàdd si njéeli wàdd mais tey jii loolu moo am ci régime bi ndaxte tey jii famille président de la république ñu ngi ci biir te loolu soo xoolee moo taxoon nit ñi doon xeex xeetu doxalin yooyu fasangu doxalinu politique yooyu moo taxoon ñu doon xëy bis bu ne subaak ngoon di dem obélisque ba di fa jullee àjjuma ba Mamadou Diop des obélisque mhm. loola tey jii mi ngi am kon loolu baal ma rek Babacar ma jël mbokku téléspectateur bi nekk ci ligne bi sëñ Babacar egsi la jàmm sëñ Akim egsi la jàmm ci waxtaan bi salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah mu na ngeen def ak yitte yi. ñu ngi sant yàlla bu baax dégg nga li ñu ko leen di suivre. sëñ Xaasim Mbacke moom ci Touba Darou Minam. Mhm. sëñ Xaadim excellent ci am ci waxtaan bi. Xaasim Mbacke waaw Touba Darou mhm. Minam. ñu ngi rafetlu bu baax seen émission bi. wante boo gisee pédérage bi nga xam ne la bëgg a bëgg dafa dafa am solo lool ni ko président Macky Sall. bëgg a yóbbu assemblée ndax parti politique yi. Hmm. dañoo dem ba dañoo bëri si réew mi. Hmm. ba dañoo dem ba dafa pëcc xoo da si am doo xam kan moo ki nga xam ne moom lañu war a jox réew mi mu yor ko ndax léegi toll na foo xam ne ku jóg rek da ngay wut nga man am naa parti. Hmm. damay laaj réew mi. te dinaa la dañ kaa war a organiser organiser boo xam ne ñi nga xam ne dañoo bëgg yor réew xool ñi nga xam ne seen xam ak seen capacité ànd na foofu buñ demee ba xam ne dem nañ élection. bu ñu nga xam ne posé nañ seen i candidat xam ne ñi eh, am nañ am nañ valeur ak ak ak ak capacité mu defee nag ñooñu ñu mën a présenté wu laaj réew mi wante ku daa bëgg a yor Sénégal. Mhm. dana dem ba toll réew mi dana xam ne sagaru nit bu ñëw rek ne daa bëgg a jiite yi loolu moom wax dëgg yàlla mhm. li may wax nag mooy ne Sénégalais yi ànd ak dal ndax réew yàlla def na fi jàmm 2012 ba tey ba fi président nekkee jàmm am na. Mhm. kon nag kenn yor firnde. d'accord ngay wax mbokk question bi. Mhm. xel bu baax a baax. ñu ñu waxale ko ak ñi nekk ci ñi nekk ci nguur gi tamit. ñi wax nekk ci pouvoir man maa leen di soñ baax baax. nga mhm. xam ne réew mi dina am na jàmm ñoom it ñu yor sécurité réew mi ak sénégalais yi ndax mhm. xam na ne réew mi. si bari li am solo mooy seen liggéey moo leen moo leen ñor. ak réew mi am jàmm. d'accord loolu koy ñaan. yàlla def fi jàmm te jàmm googu incha allah rek moo fi am te du fi mos a jóg. voilà ñu lay jaajëfal ñu seen jaajëfal bi Mbacke nga nuyul ñu waa Daaru Moxteek euh, ñu nekk ci gox yu wel yu mu feggool ah, Babacar ñu bàyyi la nga daaneel. donc dama ni loolu ci lañu ñu war a gën a góorgóorlu ba yenn doxalin yi xam day tey xel day tax askan wi jëppi waa ñooñ politik jëppi waa politique jëppi làng gi nga xam ne ñooy làng politique yooyu ñu dindi ko settal sellal politique bi mm-hmm. nek politique bo xamanteni ñi cey yëngu la leen di ñor moy njariñu askan wi. moy la am solo moy jafe askan wi lolu moo upp solo. kon ci loi bi, problème amul. gis nga ñi ngank ngor gi dañ am problème jël sen problème xëppuñu ko sen problème moy xam nañ ni ni réew mi di doxé bu démé élection ñom dañuy daan moom lu leer la le deuxième mandat ou le déluge c'est une stratégie Le deuxième mandat day am wala ñu taal dëkk bi. ñoom ñoom non logique boobu ci la ñu nekk. Mhm. léegi xam nañ ni deuxième mandat bi dina jafe moom leer na leen nañ loolu soxlawul nekk journaliste soxlawul xam-xam <laughs> soxlawul di di di di di di di di <coughs> istixaar bi gën a wér mooy bi élection yi passé léegi ñoom seen problème mooy lool mais ñi créé ñu problème tey jii teg ko ci problème ci kanamu askan musuñu am problème participer à des élections depuis bi ñu amee indépendance ñi ngi dem élection présidentielle musuñu am problème bi askan wi amuñu problème boobu mhm. léegi ñoom ñoo am problème mhm. léegi ñoom problème boobu ñoom nan lañ koy saafara ni ñu koy saafara ñoom ni ñu gisee ñoom au lieu muy liggéey lu dalal xelu askan wi ba askan wi man leen a yokkalaat mooy ñoom mbër yi bàkku war a dem ci làmb ji nan lañ leen di man a falan ba ñoom duñu bokk ci làng d'accord loolu mooy problème téléspectateur bi excellent jàmm ci waxtaan bi waaw asalaamaaleykum salaam wa rahmatullah cheikh bi ñu ngi leen di ziar la ziar ci waxtaan bi waaw li may li may wax daal mooy euh, affaire parrainage boobu mhm. Euh, man dama jàpp ne euh, man naa ñàkk. Mhm. li tax mën naa ñàkk. Mhm. mooy euh, règle du jeu waruñu ko changer waxtu wu nekk. Mm, président Macky Sall liñ koy laaj mooy bilan. Mhm. te d'après li ñuy wax ñoom ñëpp mooy lim fi def. lu convaincre la lu baax la lu am solo la kon donc dul changé loolu ñu euh, indil réew mi baax na neex na am na solo buñ delloo daañu joxaat leen réew jërul changé dara man daal loolu laa voilà ñu lay jaajëfal ñu lay jàpp jaajëfal euh, honorable Babacar moom jàpp na ni que ni matt mi nga xamante ni moo fi moo taaloon 23 juin 2012 moom fi mu toll nii egg nañ ci <laughs> mu ngi fi. xam nga encore une fois 23 juin. Mhm. ak lii nga xam ne mooy système parrainage bi ñu yóbbu projet de loi bi assemblée. dama bëgg sénégalais yi nga xam ne ñoo ñu seetaan di wax ak ñun ñu xam ne te ñu ko gën a xam sax jàpp naa loolu.

le président de la République et son gouvernement daañu def bilan bi devant les Sénégalais. D'accord. On honorable Balma rek ma jël mbokku téléspectateur bi nek ci ligne bi salam alaykoum. waaw sëñ bi da ngeen def. Ñi ngi sant Yalla bu baax excellent jam ci waxtaan bi. kontaan nañ ci émission bi vraiment ci parrainage bi. Mhm. mais man euh, parrainage mon man anduma ci. Mhm. pour pour deux raisons xam nga c' est vrai que euh, consacrer nañ ko ci constitution bi. mais dafa amul benn aspect sociologique. parce que mhm. booy xool indépendant yi. boo jëlee ci dernière élection deux mille deux mille douze euh, ñaar ñoo nekkoon indépendant ak euh, madame Diouma Dieng Diakhaté ñaar ñi dañoo recalé keneen moom lañ bàyyi ni madame Diouma Dieng Diakhaté mhm. donc ça veut dire quelque part que du point de vue sociologique les indépendants en fait booy entre guillemets il n'existe pas ay création de l' c'est une psychose man pour man. sëñ bi da ngay wàññi tuuti sa télévision dafa am benn bruit bu xaw bizarre bu muy def. waaw waaw waaw nga jéggal ma waaw. Mhm. loolu dama bu wax foofu ne. pour mhm. man parrainage bi y' a pas sa raison d'être. Mhm. parce que bu fekkoon ne waroon na lu ñu waroon na lu ñu waroon na def la mënoon nañ ko consacré nañ ko ci ci ci référendum bi pourquoi attendre aujourd'hui pour wax waxu parrainage alors que la rationalisation des partis politiques waroon nañ buñ ko régler je crois que une question de soupoudrage la rek dañu nit élection té d'ici 2019 il n'y aura pas plus de 15 candidats parce que mon collègue, dans l'histoire du Sénégal mhm. les candidats qui dem élection depuis 1983, en 2014 c'était 14 partis mais en, 2000, ce n'était pas 14 partis donc bu ñu nax Sénégalais yi quoi ñu bàyyi la géopolitique mu lay rek di d' accord sama sëriñ li ñu dese ci waxtu dafa dafa néew lool nag dama bëggoon a jégal rek nga baal ma nga ñu ñu gàttal allégé honorable waaw may wax rek ne 23 juin du du ak système parrainage bi ça n'a rien à voir ci wàllu éliminer ay adversaires politiques Karim dañ ko doon toppee enrichissement illicite sunu justice réew am lu mu ca décidé du ma ca xóot le cas Khalifa Sall mhm. Khalifa lan lañ ko toppee faux et usage de faux bi ñu demee ba toll ci ci pandaw ko code pénal la sukkandiku ba jox ko verdict bi ñu ko jox loolu it duma ca xóot leneen li mhm. gestion familialu nguur la ñu wax ban gestion familialu nguur président de la république di ay sénégalais lay la la séqal réew mi ñi mu tabb mhm. ànd ak ñoom di liggéey jàpp naa ne ay sénégalais lañ ama gisaguma fenn fekkeeguma benn waxtaan woo xam ne dama gis ñu ne doomu président wala sëtu président dafa bëgg a nekk président de la république président Macky Sall da koy proposé Sénégal yi li am solo tey mooy bu fekkee dañuy waxtaan mbirum parrainage bu ñu ci dugal askan wi pour ñu def soulèvement sénégalais yi tey li leen li ñuy xaar ci nguur yàq jàpp naa ne nguur gi mu ngi koy def mm-hmm. mooy ci wàllu njàng mi dëgg la am nay tolof tolof nañ ko waxtaane wàllu santé am nay tolof tolof nañu ko waxtaane leneen ak leneen non président bi mu ñëw dafa def vision def dafa am vision tek programme diko doxal tay li ñu indi ñu bëgg ko boole askan wi ça n'a rien à voir avec les préoccupations des sénégalais. Mhm. sénégalais yi tey xam nañ face à face bi am entre le pouvoir et l'opposition le pouvoir a pris ses responsabilités parce que moo war a organiser ay élections léegi nii dama gis ñu dóor ñu ay ci nan ne élection yi niñ ko organiser baaxul nañu wax ne am na ay irrégularité mhm. mais que Sénégal amul ay élection yu libre et transparente man gisaguma ko naam élection législative yi passé moo ma tax a delluwaat assemblée mais gisuma fenn fu ñu wax ne ni ñu ko organiser dafa am ak càcc gisuma ko mhm. mode d'élection encore une fois et le système ba tey changé wuñu ko dañu ne nañu rationaliser les partis politiques Babacar ñëwaat dolli ci xar karaw créer parti ah, politique mu doli wat ah, mu doli wat ne tay jii ñom ñëpp ba ñu oote oté ñu si téléphone bi muy sénégalais yi ñu bokul ci plateau bi ak ñi ñi sétane xam nañu ne y a une urgence et c'est une nécessité pour que tay ñu réduire les partis politiques Bal ma agali rek pour rejoindre le statut de l'opposition mais une opposition qui n'est pas organisée une opposition bo xamné dafa opter la politique de la chaise vide. Une opposition, elle boycotte les concertations, même les séances plénières. Les députés de l'opposition, ils boycottent. Mais Mais le pouvoir prendra toutes ses responsabilités pour organiser des élections libres et transparentes. Mais nous, en ce qui nous concerne, en tant que majorité, les poulots, il n'y aura pas de forcing. Nous, nous, de forcing. Démocratie, mm -hmm. anarchie.

société civile. Mhm. Hein? amul benn acteur bu wax ni li baax dañu ñepp ñaan pour état bi reculer. woote c'est c'est qui? les Sénégalais. Sénégalais yi ñoo woote. ñi ne d'accord na ñi ne c'est ça la démocratie. je je termine euh, Sira xam fan la réew bi tollu. gis nga bu waxtaan amone. bu ñu waxtaanoon parrainage bi di ngeen comprendre di ngeen ci gis leneen sax di y comme une intelligence politique au Sénégalais parce que am na ko posé léegi benn question bu na ma du ci parce que. non ñëpp la ko posé sax. monde est libre maa ngi parce que loolu amul firnde yu wér. parrainage bi muy wax parrainage dafa bari façon mais ñun parrainage bi ñuy wax parrainage pour participation à l'élection présidentielle la wax ben té waxtan bi bo xolé ci stratégie de communication bi ñi def jël parrainage teg ci kaw gën ko mhm. mais ñaari projet la am projet changer la loi électorale bay changer même la participation c'est l'article L57 waaw léegi gis nga ni nga dañ ko bëggoon comment comment lañ ko Karim affaire Ségura bi nga insinué pour ma wax la rek ñu am culture politique affaire Ségura bi nga indi. culture so amone déglu ma wax la. Sénégalais yi ngay waxal. j'ai une lecture Sénégalais yi nga waxal ah. li leen le faux discours bi ñu construire autour de ay notion que d'évolution monarchique te mënul am ci Sénégal amuñu monarchie création de l'esprit parce qu'il fallait faire partir le régime et lépp lu ñu mënoon def baax na mu nga waxtaan bi yëpp déggoo ma man ma jël référence 23 juin parce que mën nañ ci waxtaan dans le fond pour intérêt Sénégal. mais tu l'as insinué. maa ngi ñëw maa ngi ñëw foofu mën nañ ci waxtaan pour intérêt Sénégal mais pour man hein, am naa opinion mais je respecte les Sénégalais ils mobiliser wu parce que ci réew mi la ñu mais li taxoon ñu mobiliser ils yow nga bokkoon ci. Babacar interpellé la man ma d'accord ci familiarisation de l'État ñu waxtaan ci réew mi xam tout moom moo tout Sindiély Karim mais tey lañ a tuddal kër président Macky Sall doomam doomu. laisse-moi terminer gisuma doomu doomu ah. Macky Sall. bu am nga bu naa ma lu bëgg. dama mhm. bëgg nga dem gëstuwaat par texte parti socialiste jang Senghor. laissez-moi terminer s'il vous plaît dañuy waxtaan. non non non dañuy waxtaan. non non man duma ma objet débat. di nga xam bu ñu bu yow buñu duggé ci libéralisme. ak démocratie dans le parti démocratique sénégalais comparé ko ak suma attitude ak suma culture politique suma cursus politique je peux vous dire que n'y a pas photo mais c'est mon temps de parole non parce que vous m'avez interpellé devant les Sénégalais. parce que da coupé. non non non mon cher. comme on t'a interpellé sur la question euh, du parrainage, limitez-vous S'il s'agit de conseils de grands frères à, l'endroit de son jeune frère, ils, sont les bienvenus, mais ils forme s'il vous plaît. S'il vous plaît, ne personnalisez pas. je suis fier de mon parti. J'ai été très bien formé au Parti Socialiste. Et là, les Sénégalais le savent et peuvent en témoigner.

Il li muy discuter mhm. ak deux honorables députés. bien sûr. Avec Babacar Diop. Mhm. Babacar. di docteur. docteur. Mhm. ndaw nek ni man. ñu fu ñu nek mais ma naw ko ci ay xalaatam. ci ay ay constance am. bu na ma xaw ko bu baax. mais ci seen bu sore ma jàpp ne tey bokk na ci ndaw yi nga xam ne nii tey ak tolluwaayu réew mi bu ñu toogee ñu waxtaan dinañ ci jëlee dara là laa nekk député à l'Assemblée nationale Mais quelle que soit la crise de l'Assemblée nationale il faut le sens des responsabilités nous avons température réew mi mën a ci li nga xam ne nii. da nga gisul loolu Sénégalais yi di xaar. pour sa mot de la fin temps bi jeex na tàkk. comme dafa am. Euh, mbokk téléspectateur bu doon laajte may remercier waaw may remercier suma mbokk. Modou ñu jógee Touba yooyu bokk ci. Mhm. pour wane rek ne réew mi ñiy seetlu xam nañ ne fi ñu ko proposition bi. Mhm. bu baax la. Mhm. bu pertinente bi nga xam ne dafa wax ne daf ñuy poser question dafa wax ne Benno Bokk Yaakaar. une proposition 0,5 ah là. président de la république propose son projet bimo am 1 cela veut dire que nous sommes jëlul waxu benn Bokk dafa jël synthèse. ba paré def proposition. tontu vous tontu ci temps bi Modou wax. Mhm. exemple dit France La koy jox. Mhm. France vous électeur un élu ça veut dire qu'un élu, du point de vue de la représentativité, mhm. moo ëpp doole sax ben électeur. ñu wax la ne la dañ ci jël nombre bu am importance pour ñu porter sa candidature. leneen li ma xam nga bëgg bu fekkee wax ji gudd mu gàtt lenn rek moo ci am. Mhm. koo xam ne dan na la ñii ñuy jël ni jurum fukk ak ak ak ak dara moo tax nga jité rew ñu ne la pour nga mën a dugg ci làmb ji indil kenn nit ku ne yow la ànd ak wax dëgg yàlla bu fekkee ne am nga popularité ak représentativité te candidat bu doon réew mi day jël ci alalam jox la comme li ma wax nit wutal la ay bulletin duñ jël nag suñu xaalis bi di ko sànni ci mbedd mi ñoo xam ne ay prix forest am sama kàddu gu mooy askan wi laay gërëm di leen wax ni FDS judd na force démocratique du Sénégal <laughs> kon ñi ñaan ndaw ñi ñëpp ci nekk ci Sénégal ak bitim réew ngeen ñëw bokk ci suñu parti bi ndax mooy parti bi nga xamante ni façon doxalinu politique yi nga xamante ni mooy régime yi fi nekkoon sengoor ba ci jamono PS ak euh, PDS ak li fi xew ni façon yi doxalin boobu la ñu fi bëgg a dindi ngir indi fu bu bees boo xamante ni dina mën indi jafé jafé dina mën indi safara ci jafé jafé askan wi kon dal ñing ci woo ndaw ñi di ci woo ñëpp réew mi ñëw bokk ci FDS jeex na tàkk Babacar <laughs> jërëjëf maa ngi lay remercier mais juste rek euh, di préciser une chose bu sama mhm. frère wax euh, Lamine que l'Assemblée nationale du Sénégal n'est pas en crise mhm. nekkuñu ci crise il y a un projet de loi bo xamné ni dañuy waxtané ci walu parrainage dina jaar ci walu yu wara jaar mooy assemblée nationale dafa am nu muy doxee na jaar ci pàcc yi mu war a jaar ba ñëw ci plénière bi ndax moom la sénégalais am habitude di wax hmm. mais jàppal ne assemblée nationale dafa am majorité am ñi ñu naan opposition ak ñi nga xam ne faruñu fenn muy les non hmm. daa ñu càmbar projet de loi bi wax ca lañ ca war a waxtaane ko bu voté jotee ña war a voté di di wax leen rek <laughs> que askan wi encore une fois ah. bu leen politiciens yi jaxase ah, ah. politiciens yii ma gis ñi toog suñu kanam lenn rek moo leen ñor nuy fexee ba pousse président Macky Sall ñoom ñu toog loolu nag. Mhm. kenn rek moo ci am décision muy sénégalais yi bu jouru vote jotee ñoom ñooy voté ji. parti politique yi kese du ñu fal seeni candidat di wax rek ne 23 juin ñaanuñu yàlla Sénégal dundati ko. Mhm. parce que la taxoon ñi di ko def ak lii xew bokkul. changé wuñu règle du jeu bi changé wuñu dara dañu ne. nañu gën a yaatal mbir mi pour permettre sénégalais yi bëgg a nekk président de la république ñu mën ca àgg loolu rek laa bëggoon a leeral di gërëm sama frère yi ma bokkaloon plateau bi yëpp <laughs> euh, di leen di leen ziar Lamine conseil na ko jox na ko jox euh, Toussaint après Toussaint dina na ko jox mu dajee assemblée voilà merci beaucoup may fàttali <laughs> euh, on termine on termine à beauté may fàttali que ni seen suñu émission spéciale bi nga le député Sira Ndiaye ba pare di responsable politique bu l'Alliance pour la république Fallait ca département bu ñu lay jaajëfal honorable ñamoon mbégte tamit don dalal ci plateau bi benen député benen parlementaire ko xamé mo tawal eh, tewgal askan wi feulé ci penchum ndaw réew di honorable député Mambounama Massal di secrétaire général bu jeunesse socialiste ñu lay jaajëfal honorable merci ñamoon mbégte tamit don dalal ci plateau bi le docteur Babacar Diop di secrétaire général bu FDS di force démocratique du Sénégal di parti bu yes bo xamé ñing ko taxawal ci samedi gi ñu génn jërëjëf jaajëfal nañu sëñ Babacar ñu jaajëfal grand Lamine Lamine euh, Ba membre bokk membre comité directeur du parti démocratique sénégalais may defal mention spéciale équipe technique bi nga xam coordination préparation émission émission bi mention spéciale ñoom ñëpp xam nañ bu ñu signature ñoom saa su nekk rek ñoom ñoo ñu ci émission bi may jaajëfal rédaction pour DTV di leen jox dig daje alors biñ avec toujours le même plaisir إلا أنت الله أكبر الحمد لله h sur DTV, le journal et ses titres. Projet d'implantation d'usines de vêtements pour militaires et sportifs à Gamiadio, la polémique entre les ministres de l'artisanat et du commerce rassure les populations. D'ores et déjà, un groupe chinois investit 25 millions de dollars. Non-respect du quantum horaire, va-t-on vers une prolongation de l'année scolaire au lycée Lamine Élèves et censeurs ne cachent pas leurs inquiétudes. Ils invitent gouvernement et syndicats à trouver d'entente. Démocratisation des codes USSD, les associations des consommateurs applaudissent, leur position est claire, pas de politisation pour permettre aux usagers d'en tirer un maximum de profit. La vente de poissons, une activité pisée par nombre de femmes, la raréfaction du produit halieutique ne milite pas à leur faveur. Elle sollicite le soutien du gouvernement du Sénégal dans le sujet du jour. À voir dans cette édition. Bonsoir. Polémique autour de l'implantation d'une unité de confection de vêtements pour militaires et sportifs à Gamiayo. Un groupe chinois investit 25 millions de dollars. Le ministre de l'Artisanat et son homologue du commerce rassurent les acteurs du secteur. Selon eux, ce projet va revaloriser et densifier le tissu industriel national. Il va aussi créer un cadre de sous-traitance avec le secteur privé local et diversifier les exportations et beaucoup d'emplois sont entendus, Le point, c'est avec Mansour Saour. Notre artisanat vraiment n'a pas à avoir peur de l'arrivée de ces entreprises. Ces entreprises vont les accompagner sur le plan technologique, va élever le niveau technologique, va les accompagner également sur le marché extérieur pour que demain nous puissions avoir aussi des champions sénégalais qui vont aussi aller à l'assaut des marchés internationaux. Des propos qui devraient normalement rassurer les acteurs du secteur sur ce projet d'implantation de l'industrie chinoise de couture et de confection de vêtements militaires et sportifs au Sénégal. Selon la tutelle, le secteur privé national n'a rien à craindre. Cette entreprise chinoise CNH, qui va donc exporter sur le marché européen, le marché américain, des tenues euh, vestimentaires pour la police, pour euh, l'armée, pour euh, les, les, sportifs, est un projet qui va recruter 1000 à 1500 jeunes Sénégalais et naturellement il y a une cible commerciale sur laquelle pour le moment il n'y a aucune entreprise sénégalaise qui est présente. Cette entreprise euh, travaille exclusivement pour l'extérieur, premier élément. Et deuxièmement, il y a un transfert de technologie euh, nécessaire pour le développement du secteur. Au départ, c'était des rumeurs, mais on n'a jamais quand même pensé que ces rumeurs-là allaient quand même avoir une aussi euh, importante dimension. Parce que tout simplement, ce qu'il faut savoir, et je pense que c'est un minimum, créer 1500 emplois pour une industrie textile, ce n'est pas pour fabriquer pour le Sénégal. Pas d'inquiétude donc, selon le ministre de l'Artisanat, cerise sur le gâteau, ce projet va contribuer à la densification du tissu industriel national, le transfert de technologie et la création d'un cadre de sous-traitance avec